asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki talibe yi yéen ñi nga xamante ne bàyyi xel ci li nga xamante ne mooy seen youtube bi di Serigne Abdoul Khadir Ba Djily ba pare ngeen di ko am ci tiktok bi nga ne mooy Serigne Abdoul Khadir am mbégte ak kontante di ànd ak ci li nga mooy émission yi ñuy moom tey nag ñu ñëwaat fii ci këram fas waxtaan ak moom jëmee ci beneen jàngoro jàngoro boo xamante ne jàngoro bu askan wi la jàngoro boo xamante ne ñu bëri ngi jëf jànkonte ak moom te bëgg nañ ko leen ko saafaral moom fi nga xam ne mooy Dakar parcelle képp ku jokkoo moom ci numéro bi rek dinaa leen jox numéro bi ci kanam tuuti waaye dama koy jox kàddu gi nag moom Serigne Abdoul Khadir Ba Jili mu nuyoo bu nuyoo pare ñu doog a dugg ci laaj ak tontu yi salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Cheikh Moustapha ñu ngi lay fay di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci internet bi rawatina ñi ñuy topp ci chaîne YouTube bi ak ci TikTok bi di wax rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wax uqdatan min lisani yafqahu saddi lisaani nawit janaani safi amaani wa zid kon ñu lay delloo kàddu gi bismillah jërëjëf sëriñ Abdoul Khadir Ba jili ñu déggandoo nuyoo am solo bu mat bu matale boobu ah, laaj bu njëkk bi nag moom moo di nday jàngoro ji nga bëgg a xam ñu bëgg a waxtaane muy siti ah, bëggoon a xam siti lan mooy siti ak ah, li caaju waaw Cheikh nag dafa bari ay tur ndax français moom buy wax syphilis rek lay wax wa ndax wolof nag da ko wutal tur yu bari ndax day wax ndoxum siti toppum siti ba ci ër ba leen saalum saalum ñuy wax kuli ba ci tut sax yooyu yëpp ci xeetu ndoxum siti ci la bokk kon ndoxum siti mooy ndeyu jàngoro ji nit ñi yàgg nañ cee wax waaye mel na ne saafara ko mel na ne lu jafe te danañ ci dikk bu baax a baax ci kanam incha allah. Euh, laaj bu solo boobu ni nga ko tontoo mu mel ne City kon ci aju bëri na waaye nag bu mel ne am na ay mandarga yoo xamante ne City moom ci boppam amee ko naka nga ñuy leeralee mandarga yi ba ne ku ko am rek jàpp na ne lii moom City la. waaw mandarga yi moom tamit siiw na bokk na ci di xasan fi mu ne am na ñoo xam ne buñ sangoo rek bu ñuy paree rek dañuy xasan seen yaram day mel ni day xasan euh, loolu nag bari na ci nit ñi lool. am na ci ñoo xam ne góom yu sew la leen di def góom yu sew la leen di def di toj di toj nga xam ne ñaare fu laal rek day day day foofa day daal di wàlle am na ñoo xam ne ay xar-xar la leen di def seen diggante baaraam yi day xar di génn léeg-léeg lu mel ne lu weex am na ci ñoo xam ne day tàng seen tànk yi bari na ci ngay dégg ñu baree bari di la wax ne samay tànk ci suuf gi day tàng am na ci ñoo xam ne sax seen tuñ yi ci boppam day toj loolu ndoxum siti da koy def ah, am na ci ñoo xam ne sax ba ci seen waa yàlla yi day mel ne lu tàng jër loolu ndoxum siti daf koy def am na ñoo xam ne day tàngal seen naq mooy moo xam góor la wala jigéen am na ci ñoo xam ne sax seen wey yi boo ko gisee day ñu kukk te fekk boobu ndoxum siti moo koy lakk am na ci ñoo xam ne sax day dagg seen karaw moom ndoxum siti ba ñi nga xam ne dañu am karaas yooyu yëpp ci xeetu ndoxum siti la bokk ku ko am rek xamal ne am nga ndoxum siti ba ci bët yoo xam ne sax day faral di xasan lu bari yooyu yëpp ndoxum siti da ciy jeexatal ak bët yu lëndëm yooyu yëpp ndoxum siti da ciy jeexatal kon ndoxum siti niñ ko tuddee nday jàngoro ji lu matala la macha allah ndoxum siti ndeyu jàngara ju matale la mbokk yi ba fàttali leen rek ne leen sëriñ Abdoul Khadir Ba Djily képp koo xam ne bëgg naa jokkoo moom ah, ci numéro téléphone bii ngay jël di 77 743 30 92 77 743 30 92 bu fekkee fii Touba la mën ñëw fii ci ci 28 su fekkee da ngaa nekk ci bitim réew wala nga feneen mën ngaa jokkoo ak moom mu ñaanal bu dajee ngeen def ay pexe ba nga xamante ne moom nga jot ci ñaan gi bi ginnaaw ba ñu xamee nag mandarga yooyu nga nga dégg dégg nañ si biir kàddu yi mel ne ay yaram yu woo ne xasan wala yaram wu amay góom ba ci wey yu amay góom ak bët yi nga xasan yooyu yëpp mu nekk ci ay ah, jëm ci wàllu nag moom mooy yooyu yëpp bu amee jeexintal yi nga xamante ne moom siti ko defaat ci doomu aadama bi waaw ndoxam siti nag li mu mën a yàq bari na bokk na ci mën naa téye ci ku góor ki ba mën yoom du baax ba muy am doom ndax xam nga xuur yi nga xam ne moo ne ci góor mooy togg maniyu te maniyu moom bu ko ndoxam siti mu jàppee dëgg-dëgg ndox mi dootu am qualité ba mën a am walax jaan yim soxla bokk na ci mën na laa néewal sa kàttan kàttanu sëy ndoxum si di bokk na ci lu koy wàññi bu baax a baax bokk na ci sax sax yaram ci boppam mu nga néew doole maanaam nga am faiblesse boo xam ne da nga ko yëg ci sa yaram loolu ndoxum siti daf koy def am na ci ñoo xam ne sax ndoxum siti da leen di miirloo miir te fekk boobu ndoxum siti moo la koy def bari na ci xeet xeeti awaruntument yoo xam ne day am ci jigéen ñi loolu tamit doxum siti da koy faral di ko def kon doxum siti bari na ci loo xam ne mën na koo lor nit ki su fekkee am na ko te saafarawu ko doxum siti nag ñaare ñi ko amut bariwut xanaa kay day ëppantu doole ndax danañ ci ñëw lekk yi ñuy lekk ak environnement bi ni ñuy dunde loolu bokk na ci li tax doxum siti jafe faj macha allah mbokk yi ñoo dégg Ba jili ci leer yi am solo yooyu nga xamante ne def na ko muy jeexintal yi nga xamante ne moom la euh, ndoxum siiti di amal ci doom aadama bi gis ngeen ne kon doomu aadama bi de miir yenn miir yi wala mu nekk euh, bu ëmbee bu ñaare amu ba yàq wala yu demee yëpp da koy waral ma fàttali ne 77 743 30 92 mom mooy numéro bi nga xamante ne moom ngeen ko jotee ah, bu fekkee ne ah, yéen a ngi Touba man ngeen ñëw fii këram waaye bu fekkee ne mi ah, dana nekk Dakar fa fa ca parcelle lu ci mën a doon rek boo jokkoo moom ci numéro bi di 77 743 30 92 di ngeen di ngeen jokkoo yéen ñaar moom ginnaaw ba mu génnee nag yooyu jeexintal ba pare ndax sa am na saafara ak naka nañ koy saafara waaw Cheikh Moustapha laaj nga lu am solo ndax jàngoro joo gis rek saafaram na yàlla njëkk a wàccee waaye ba tey saafara ni ma koy faral di rek dafa am ñaar benn bi comportement bi nit ñi ni muy comporté woo ak garab yi muy jël pour dimbali ko bu fekkee da ngay jël garab yu baax te bët bu set yaa ngi lekk luy tax feebar bi du dund loolu pour ñu fañ la day jafe ndax ndoxum siti ci deret la nekk moo tax mu nekk loo xam ne maanaam xeeti xeetu virus la moo tax lu jafe-jafe saafara la bokk na ci li muy bañ comme jën di lekk jën yu bari ku am ndoxum siti danga ko war di moytu ndax day dundal ndoxum siti jën bokk na ci li tàngal sa sa sa tànk yi tàng lekk jën yu bari da koy faral di def ak xeeti sax safal yi nga xam ne euh, moom itamit dañ ko def ci toog yi loolu bokk na ci di dundal ndoxum siti ak imorit ak feebar yu baree bari ginnaaw loolu saafara si ñun nga xam ne moom lañ la koy jox bu ñu la ko le bu soobee yàlla diir bu gàtt euh, te lépp naturel lay doon boo ko jëfandikoo diir bu gàtt bu fekkee say tànk day xar da daal di gis ni muy wére ba noppi sax garab yi lay jox dafa baax ci kër gi maanaam day dolli wàll sa kattan ndax garab ñaar lay doon benn bi boo ko jëfandikoo war nga koo yëg ci sa yaram benn war nga koo tuur ndox wala nga génn ko ci ginnaaw kër garab gu baax dama leen di wax ne képp ku ko jëfandikoo une semaine rek war nga xam ndax garab gi baax na wala baaxul waaw du ñu garab yi ñu lay jox soo ko jëfandikoo diir bu gàtt rek da ngay daal di yëg da koy yëg ci sa yaram bu dee garabu ndoxam siti yi moom da ngay gis ni koy génn da koy da nga tuur ndox moom bu dee góor moom dangay ngay ci sa bopp kàttan gi mu lay dolli bu baax a baax garabu ndoxam siti yi waaw mbokk yi kon ñoo ko déggandoo saafara yooyu moom la ndoxum siti di amee ngeen dégg lu mel ne ah, li nga xamante ne moom moo di bu dalee bu fekkee ne yaa ngi koy faj ah, da ngay gis ne bu boobaa sax bu fekkee ne góor nga da ngay yëg wax dëgg yàlla day feeñ ci kër gi loolu am na solo ndax moom ndoxum siti mën naa gàllankoor diggante góor ak këram jàpp nañ ne kon bu fekkee saafara sam rek dañuy gis ni ko waxee noonu lay daal demee léegi nag mënuñoo wax ci ndoxum siti ba pare ah, te demuñu ci lu di góomum ngal ngal lan mooy góomum ngal ak lan lañ cee waaw Cheikh Moustapha góomu ngal nag li tax ma sawar cee wax dafa nekk euh, taab goo xam ne ndax góom yi dañoo bari dafa am góom boo xam ne góomu jabet la am góom boo xam ne mag dañ ko tudde góomu di tax ñu tudde ko góomu robaale maanaam jafe faj gim jafe faj te daanaka nit ki da ko yor ba faatuwaale moom moo tax ñu tudde ko góomu robaale ñaare moom boo ko day xañ ñaaral yooyu it yàlla dimbali nañu bokk na ci li ñuy saafara ba cay taabu ngal taabu ngal moom nit ñi bari na ci ñoo xam ne dagg nañ seen tànk te taabu ngal moo leen dal dafa nekk nag mën ngaa war junni sëriñ jël la naa hôpital waaye mën ngaa war junniy sëriñ doo ci doo daje ko ko daje ko ko ndax garab gi moo jafe te aw sax la wuy dund ci biir feeg mënoo rey mënoo rey sax wi mënoo ko rey te sax wi appareil tubaab yi duñ ko gis waaw moo tax bari nañ ñoo xam ne dañuy dagg fii fekk boobu sax wi weesu na foofu moo tax moom itamit taab la gu naqaree faj te yàlla dénk nañu garabam waaw bari na ñu ci dimbale mën naa ne ñi fi ñëw ñëpp di ko ci faju yàlla defal na leen wér mën naa wax ne benn laa ci masa dajal goo xam ne muy góomangal bu të ndax góomangal bu të nga sax yooyu dafa dafa laal ci saytaane parce que doo ko gis moom bu dee sax day saay ci biir góobu ngal bu te moom doo am bunt parce que du def du bënn bay def taab di di dëtt waaye day ne ci biir du di di di di dund di gas di dem te ginnaaw ñun duñ xotti moo tax waaye bu tekkee góomu ngal boo xam ne mi ngi génn dëtt xam ne fu ne dem nga fa di fajo xam ne boo fajo mën ngaa toog ñetti weer mu mel ni dafa wér jekki-jekki génnaat xamal ne am nga taabu ngal moom moom bokk na ci yi nga xam ne moom bari naa jafe-jafe faj lool te it ñaare bu fekkee dara dafa dal nit ki foo xam ne paddu la euh, mën na koo faat ndax day gas di dem rek macha allah kon mbokk ñoo déggandoo góomu ngal mu nekk loo xamante ne góom euh, day waar la boo xamante ne bu sa bu dalee nit ki ah mën naa yàq kon mbokk yi loolu moo nekkoon tey suñu émission du jour ngeen moom moo jëmee ci li nga xamante mooy mandarga waaye wàcc ci ba ci li nga xamante ne mooy jeexintal yi nga xamante dana ko def ba ci saafara ak góomu ngal gis ngeen waxtaan bu am solo bi nga xamante def kon xam naa si nga Abdou ba jiir ba bàyyi la sëñ bi nga tàggatoo. waaw di amaan mbégte rek di tàggatoo di leen jox beneen dig daje ci ci yeneen i fànn xam-xam incha allah di jégalu ci kàddu yi nag loo lépp loo xam ne njuumte la rek ñu ngi koy ñu ngi leen koy jégalu di ko jégalu suñu borom te xam ne lu suñ jubluwaay euh, li ci am njariñ te ngeen mën koo jariñoo ñu koy sant yàlla de leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa ta taala wa barakatuhu mbokk yi ko ñoo déggandoo euh, nuyoo bi ak li nga xamante ne moom moo di jeexalukaay bi lépp rek ngeen gis na yiw yi nga xamante ne mi ngi ci muy waxtaan wi ñu waxtaane tey jëm ci wàllum siti kon mbokk yi kon mi ngi noonu kon euh, sëriñ Abdul Xaadir Bala ci biir euh, li nga xamante ne moom moo di YouTube bi waaye tamit fi nga xamante ne moom moo di TikTok beeg fépp rek fi ngeen ko mën a gis rek ngeen jokkoo moom ci 77 743 30 92 bu boobaa dina leen jàngoro di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala